ok am na solo mhm. léegi ñu des ba ñu des ba léegi ci écrit bi rek moom moom Balla Gaye 2019 la ko joon a bëre est-ce que jotul tamit ngeen gën a organiser wu mhm. gox bu nekk gën a wu écrit bu nekk gën a organiser wu may fexe di organiser seeni i mhm. ndax bëre 13 janvier 2018 waroon ngaa fexe ba décembre 2019 wala boog janvier 2019 waroon ngaa fexe ba décembre 2019 nga bëre est-ce que jotul écrit écrit bu nekk am promoteur boppam waa Lamine loolu dëgg la tey ji loolu lépp tey ji écurie yi mën naa ne fi mu ne nii ak mbas bi am di ñaan yàlla Sénégal yàlla jële fi feebar bi quoi hmm. mais combat yi waroon mën a taxaw daaw ñoom ñëpp waroon nañ mën a bërewaat mais ak feebar bi moo pénaliser làmb ji. mais avant feebar bi xam nga Balla Gaye dafa toogoon nekkoon si wàllum te tolloon si làmb foo xam ne dafa tolloon si li ñu naan reculer pour mais sauter dafa reculer woon te looloo xawoon yéexali mbiram mais yéexalu ko sax parce que ku dégg roi des arènes sa dara yéexatul te bi mu si jógee tey ñëwaatee gis ngeen performance yi mu wane te Balla Gaye nag da mbër moo xam ne nii tey ji mën naa ne mbëru Sénégal bi fi yi fi nekk yëpp tey ji moom la ñëpp soxla pour bëreek moom ndax moo la mën a may li nga bëgg moo mën a neexal làmb ji moo mën a bëre mu neex moo mën a tuus mu neex moo tax làmbam décroché ko du yomb ah am na yeneen mbëri fi nekk yoo xam ne mu neex non mais kenn day Balla Gaye Balla mooy neexal làmb ji su yàlla rek taxee ñuy wax ko quoi te dëgg rek tax ñuy wax du kaadul far du kaadul dara Balla Gaye bisam bu ne événement la bisam bu ne événement la mbër yëpp moom la ñuy rêvé bëreel ndax moo lay may xaalis moo lay may tur bëreeg moom. mais ñu ko daan moom rêvé wu ñu bëreeg moom. comme kan. Eumeu Sène. non Eumeu Sène ah. Bombardier. Bombardier Bombardier est-ce que du ren la jeexal. jeexalagul ah, ma doon dégg ñu ne jeexal na. Bombardier am combat di jeexal. non dama doon dégg ñu ne jeexal na jeexalagul de. Hmm, ah non Balla bala gay ah, combat Balla Gaye Bombardier fi mu ne nii du làmb quoi fi mu ne nii du actualité làmb. Balla Gaye kay fi mu ne nii ki mu war a leeral mooy diggante moo giri fi ne nii moom lañ war a leeral. boobu de taxaw na waaw combat taxaw na Gaston moo ko taxawal taxawal na ko fi mu ne nii. li hmm. ñaan sunu borom rek giri moom bii paa moom nañ ko def firib dib rek ndax bële passé combat bi ni mu demee la rek li si lalu woon daa bari lan moo ci lalu woon. non gëj a bëre gëj a bëre boole seeg Balla Gaye bi muy bëre giri Bordeaux man jour boobu ku ma tegoon sax Balla du ma daan. ndax dafa blessé entraînement gaañu amee ndigg bu métti non non yàgg ngeen a bëri ay mbër ñuy ñuy blessé yàgg ngeen a blessé tamit ñëw bëre Lamine man mosumaa toog si télé di tudd blessure Balla Gaye yàgg naa bëgg bele ga gaañu di bëreeg moom ba muy bëreeg Tyson zone bu métti la amee te da koo bëre kenn tudd ko mais bi muy bëre Gris Bordeaux dafa raw Ah, parce que Balla Gaye xam ne mënul woon sax sëgg bi muy bëre Gris Bordeaux. ah mu yëpp da kii rek déggoo li ma la gaañu na gaañu boo xam ne ni man leer na ma ne ku ma fa tegoon jour boobu man Balla Gaye du ma daan. Balla Gaye ak li mu joxe lépp jour boobu noonu xeex bëri nga. non su duggee après métit yeeg yëpp du feeñ mais dafa blessé combat soo xoolee combat sax da see jeex rës-rës bu gaaw ndax métit baaxul quoi métit day wàññi nit da cee rës-rës bu gaaw mais Balla Gaye rek mu ñëw nekk 100 pour cent dara jotu ko noo Gris fu mu koy jaaxalee Gris da mën a jaaxal. mais Gris bu paree tamit à 100 pour cent yombul daan est ce xam nga ni defetam yëpp ay 4 appels wala ay avertissement. non Gris mënatul gaaw pare moom. mënatul seetlu nga defetu Gris yëpp ay 4 appels avertissement. waaw loolu dëgg la moom kese kese kese. loolu moom dëgg la moom. léegi Gris léegi nga bëgg koo minimiser baal ba làmb ji du Gris toog na nee na moom chaque jour nit ñi wax nañ loolu baal ba combat bi Balla Gaye dina toog si dënnam lu kenn mus sa def. toog ci kaw Gris. yàlla na yàlla déggoo yàlla na yàlla def jàmm balagay dina toog si dënnu Gris Bordeaux incha allah. mystique ngay wax wala. wóolu ban mystique ngëm-ngëm laay wax ak wóolute te Gaye gi ma ko wóolu rek foofu laay waxee quoi. parce que xam naa bokkuñu lenn bokkuñu capacité bokkuñu si lenn su dee xeex bi ñuy xalaat ci Gris Bordeaux lama leen doon waxoon la Balla Gaye nekkul fii ñu koy wane muy jël ay box di kii di g film yooyu xoolal làmb affaire de bandi la te su arbitre ne fir day teg li mu am. nekkul fii ñëw léew xoos ay góos góos droite in deux yooyu reculer noonu non non nappaatewul moom day ñëw bomb cere ji mu jeex <laughs> kon Gris bala day ñëw bomb cere non bee paa non Gris est-ce que bii paa dina xeex non Gris du xeex Gris mënul bañ a xeex non non non non yow Gris bii ci daj yëpp non dina xeex non non Gris nee da koy jaay bii paa day bëri si nee na ndax moom nee na dafa toog bi mu bëreeg bala Gaye pare toog seetaanaat waaw xolam tàng nee na waaw Bipa xëy na day ñëw bëri si wane boppam. non Bipa dafa bëri woon tey day ñëw xeex kay dëggal boppam. déggoo li ma la wax Gris mënul daan Balla Gaye ndax kay entraîneur am Balla Gaye da koo fël sànni fële ba mu xalangu bërëngu si digg Iba Mar Diop. loolu du ci dara Gris gën a nekk xale entraîneur am moo ëpp doole entraîneur non entraîneur moo dàq bëre. moo xam nga moom moom sax soo xoolee xam-xam yu yàgg yi la yor. Tapha Guèye. xam-xam yu yàgg yi la yor. kon da ngaa bëgg Tapha Guèye Balla Gaye ko dàq bëre. fuuf. fuuf. fuuf. barke sëñ Bamba billaay ñeme naa koo fëgg kaamil waat. ci yan combat Balla Gaye si yëpp yow Balla Gaye mës nga koo gis ñaata combat la de mës nga see gis tey jii benn action mu daan si ñetti mbër mun su am Balla Gaye combat yi mu daan yëpp kum ci daanee tey nii suba keneen nee la la. daanee keneen ak keneen Balla Gaye ni mu daanee Lac de Guiers nag yow tamit. Lac de Guiers man. un seen patron. non damaa xam borom États-Unis. Lac de Guiers un man. borom États-Unis. non xaw ma Lac de Guiers un. Ah, njëkk. waaw ah ok na ko Tafa Xaadim Njaay ni ko Tapha Gueye daane. waaw waaw yooyu yëpp làmb la. ni Tapha Gueye daane ñooñu ñëpp. waaw nga ne nga ko dàq bëre. Tapha Gueye ñi mu daanee noonu ñooñu ñëpp Balla Gaye l'essentiel Balla ko daan. waaw waaw. Balla Gaye ko wër ndomba jaar jaar jaar sànn non bul tax samay mag la sax te jaru may wax ci moom yenn yi quoi nañ wax si xale yi quoi ndax combat Balla Gaye Tapha du combat. ah non du combat du woon. combat moom mooy waajal giri de. Hmm? muy andi giri de. non amul amul problème même Serigne Ndiaye sax maa ngi koy dégg mu ne moom mooy jox giri kele bi daan Balla Gaye moom na xaar ba génn si Sococim rek. yow yàkkamti nga ne Sococim Tapha Gueye nee na ma nee na ma Sococim xeexkat la waaye bu ko bu ko Serigne Ndiaye jàpp mu. Sococim bëre sax la gën a mën moo tax xamuñu Sococim Sococim école de lutte Balla Gaye ba mu daj moo si gën a naqaree bëreel Sococim école de lutte Balla ba mu daj Sococim moo si gën a naqaree bëreel. mais Sococim njool la mu am doole mën a bëre. xale lay bëreel xale bu naqaree bëri leen. ñoom ñëpp maa leen mag nga war a xam te man 85 laa nga war a xam ne kon duñ mag. yaa mag ñoom ñëpp ñoom ñëpp maa leen mag. mais Sococim moom ak Serigne Ndiaye. sa mën na ko waaye yooyu yooyu magi olof la rek mais Sococim xale la ñoom ñëpp ay xale lañ xale la Sococim xale la judduwul ñoom ñëpp ay booy lañ man mënumaa gëm mag man mii di wax yow du ma mag nga bëgg ne Sococim mag la ñoom ñëpp. benn génération mag la waaye moom ak Serigne loolu du dara loolu du dara mën na koo mag nii rek si ay 2 ans trois ans loolu du mageelu dara loolu du mageelu dara bëri nag ñoom eh? ñaar kee nag instant bi dafa am dafa am compétition de. soo ko sim ñaata combat la école de lutte Balla Gaye am mu leen di répété di leen jàppale contact. boo ko jàppale contact ak. soo ko sim xanaa comme tënkee jéemu dëkk rek nga xam ni gàmmu gay xaritam la suba ngoon ñooy ànd xanaa ñoom ñëpp ku ci am combat mu ngi lay jàppale gàmmu gay ngay tëkkale ak Serigne Ndiaye. non dama lay wax laa comme wàllum contact quoi pour wàll la mu ngi entraîné chaque jour ko jëfee ay STM maa ngi koy gis mu ngi ci entraînement am di ànd ak gàmmu gay maa ngi leen di gis si STM. wooy kon yow combat bu amoo loo ciy tiit. non wax dëgg yàlla soo ko sim moom aw ma lu ma koy tiital si Serigne Ndiaye awma lenn lenn lenn lu ma koy tiital Serigne Ndiaye. ah Lamine li wax doy na waar. non dama koo xam rek Serigne Ndiaye ah Serigne Ndiaye fan si Géejawaay la fii la dëkk bàyyi ko sax. dëkk fi de. non non Serigne Ndiaye chaque jour ma ko nga naan lan. waaw ah, si rek. non fii la mu ngi dëkk fii amoo la dëkk. léegi Serigne man damay def ci combat boobu noonu parce que ko jël ñëpp ne amoo leen sens ci combat boobu mhm. waajtaay bi léegi lan lay laaj. combat ban amul sens. ñu ni soo ko si amul sens ci kanam Serigne Ndiaye léegi loolu ban waajtaay la laaj. non ñu xamul làmb rek ñoo ko wax Sococim dafa daan mbër yëpp Sococim assurance bu mbuur rek moo ko fi daan de te daa daan ak Malick Niang te daa daan assurance bu mbuur arbitre yi woowaat leen. déet ki daan na ko na ko. fan. Mourante non boobu nekkul école de loolu mën na ne mais nekkul loolu dégg naa ko mais boobu nekkul. école de lutte Père Max dëggal na loolu. non déggul ko weddiwu ma boobu nekkul école de lutte Balla Gaye laa wax ndax Sococim Picos magam moo ko indi si école bi magam mbër la woon si école bi la ne moo ko fi indi woon mhm. Mhm. sito daal ci loolu dara. non non non man moom yàlla def na ne yoruma mbër moo xam ne day bëri may tiit moom. Elton nag mooy yoon. Elton for Elton ñaata la def Maroc yéen a gis ay vidéo mu ngi entraîné entraînement yu métti yoo xam man boo gisee sax te Elton jàppoon naa ne sax mu ngi jéem a laam-laamee làmb ji mais Elton mbër la moo xam dafa am place si làmb hmm. Hmm. naa ko nag nee naa ko nag fi ki ki ngay waaj a dugg moom day xeex moom. Elton ba te yow béréb nga wàccee sa garde bi. Elton Elton moom su dee ay dóor a koy daan benn mbër du ko ci daan. ñi ko doon dóor ak benn lañ. non non. Forza dafa soxor de. waaw ah, soxor na moom mais làmb la nañ leen boole rek làmb la ju neex ndax làmb dañoo war a xool vainqueur yi pour làmb neexaat faa ñuy xoolee vainqueur yi di leen boole. ñi nga xam ne arrière waaw ñu dul daw ne leer na la Forza du daw Elton du daw ñoom ñaar xam nga seen làmb moom mooy loolu jixaat la te Elton moom nee na moom lépp lu mën na am ku muy jox kanam gi nii nga koy dóor moo ko neex moo ko gënal. jox kanam Forza mbaa wóor na ci Elton. non garaaw la Elton neexut a yëngal Forza fii la mujjee de. Hmm? fii la mujjee ci géej waaw fii la mujjee si Abdou Diouf sunu gannaaw waaw. daan ko. Hmm. avec la manière. Hmm. nga bëgg a jëlaat Elton ko ko yokk ko ci. non làmb la rek nañ ko leen boole rek nañ leen boole rek làmb la rek. dama da di làmb ju neex rek ñoom ñaar. ok am na solo léegi promoteur nañ wax ci combat boobu noonu kon. ñu ñu des ci lees deux moom tamit kan la gëj a bëri depuis combat am ak Baye Mandione. waaw les depuis bi mu daanee Baye dafa bàyyi bëri wala bàyyiwul bëri. les bàyyi fan yee passé ñu ngi ay combat moog Lac Rose ak ay amaneex yooyu yëpp ba mu ne moom pare na pour bëre lees suñ ko joxoon suba suba avance day bëre lees di xale bu ndaw lees daa toolagum fu muy bàyyee làmb c'est que xëy na tolof tolof mooy ñëw rek. moom kay du am day daan sax moo ñëw mais lees amul tolof tolof sax ndax si victoire la jógee ñaata combat la lees daan lees ñaata mbër ñoo ko fi daan danga koy wàññi soo nee benn ñaar ne ñett fa la doo ne ñeent kon lan lañ bëggati lees li mu daan na moromam yëpp daan na ñëpp. brisule bu faas ba muy të. Mm. lees a ko njëkk laalal suuf. ay ndem si yàlla seexu jéen ñooñu ñëpp ay Coly lees dafa daan ay Baye Mandione lees dafa daan ñu xaaj bi yëpp da leen a daan. ak Garga Mbossé ay Garga Mbossé yooyu yëpp ñoom ñëpp da leen a daan lees reñe na quoi. lan mooy problème bi kon. Hmm? dafa amul supporter dafa. non lees yaa salaam. daa yaru wala lan. waa xëy na yar gi moom yàlla moo ko def ci moom. lees noonu la musa mel yar gi moom yàlla moo ko def ci moom mais cadre supporter heure buy bëre tegal kombaam moog Baye Mandione wala yeneen kombaam. kenn du na lees du mobiliser mobiliser moom da koy def moom. Mm-hmm. Mm-hmm. ok loolu loolu am na solo. Mm-hmm. dafa mel ni mbër yooyu rek ngeen fa am ci ay mbër mag na amoon nañ fi waaw ak booy yi xanaa booy relève war a ñëw xam ne ñoom dañoo war a am jom quoi jéem a mel ni ñoom Balla Gaye ay lees ay ñoo Elton wala ñooñu. Youssou Ndour am na combat wala amul combat. am na combat moog bébé Julde. tamit am na combat. waaw am na combat. Gàkku de moog am na combat moog Boy Sey. Boy Seye bu Kër Massar. bu Kër Massar waaw. ponkal lay bëreel. non ah Gàkko di ndaanaan Gàkko moom wax dëgg yàlla moom ah, magum làmb la moom. ki muy bëreel ragalul xare de. non ragalul xare mais amul problème mais làmb la rek mais Gàkko de moom dama lay wax mën nga koo sut loo ko larsu ko mais soo jàppanteeg moom di nga xam ne daja nga ak mbër te amul leen lu may sóor si moom